asalaamaaleykum ami sa internautes de Diaspora 221 ñu amati mbégte ak contentement saa su ne rek toog jàkkaarloo ak yéen di leen andi li nga xam ne actualité la ak lépp loo xam ne rek bëgg ngeen ko ngeen taamu ko loolu lañ leen di indi tey nag ñu am mbégte ak contentement bu rëy jàkkaarloo ak kilifa gu mag ne naa leen kenn dootu ko présenté fi nga xam ne moom mooy Sénégal di ki nga xam ne moom mooy Sidath de la RFM Sidath nuyu nañ la. Kia maa ngi lay euh, fay di la nuyu di nuyu euh, tous les internautes yi nekk euh, Diaspora 221. ñu am mbégte nag tey daal di lay dalal ñu fas yéene waxtaanee lu doy waar ndax temps yi gëm naa ne dëkk baa ngi toj si <laughs> ci ci deux trois jours yi mm. euh, laay wax sax euh, ñu gis ni da nga def benn benn sortie si sa statut euh, bind ci que ni li nga xam ne moom mooy Wally Ballago Seck dafa waroon na li nga xam ne joué fii nga xam ne moom mooy stade. oui bon <laughs> d'abord maa ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di kontaan ci ñi nga xamante ni ñu ngi leen di suivre. Euh, waaw je crois que li nga wax ni yaa ngi koy gis ci sama TikTok <laughs> bon xam nga nous tous euh, euh, nous sommes des porteurs de voix euh, événement bi am muy stade du Sénégal nous honoré ko avec son excellence maître Abdoulaye Wade tuddee ko ko mu nekk un gest noble bu nu war a saluer mais aussi euh, je profite aussi de l'occasion pour féliciter son excellence monsieur Macky Sall et sa première dame je peux dire que pour la première fois au Sénégal euh, l'ISA existe entre le gouvernement et puis tous les ministres ñëw xam nga les chefs d'État euh, daal di ñëw teew le Sénégal aussi tamit ñëw teew la jeunesse et la nouvelle génération euh, l'art et culture yëpp nu dajaloo ko ci benn stade boo xamante ne que euh, euh, li ko waral mooy màggal bis bi ak euh, jox bis bi maanaam bis bu bis bu rëy te xam ni c'est dans l'histoire te l'histoire retiendra donc boo seetloo nag culture daf ci am bu baax art et culture Euh, daf ci am euh, aussi mooy profité waale di féliciter tous les artistes du Sénégal euh, rawatina ak aussi la nouvelle génération d'aujourd'hui vraiment on a vu les femmes les hommes et puis beaucoup d'artistes ku ci nekk ñoo def ces prestations bu nice vraiment ñoo joué bon man lu ma wax rek comme ni ko Sénégalais yëpp waxee rek au fait parce que Wally n'est pas n'importe qui aujourd'hui. Euh, c'est le fils de Thione Balago Seck et puis il a prouvé, il a travaillé et puis c'est un garçon boo xamante euh, ni boo xamante ni boo bundul présenté ti euh, partout au Sénégal mais partout en Afrique mais aussi partout dans le monde donc événement bi nag dafa nekkoon événement mondial man noonu laa ko jàppee parce que nous sommes d'abord champions d'Afrique Euh, en même temps nu doon euh, euh, fêter le bijou bi nga xamante ni moo di stade du Sénégal mu nekkoon nag événement boo xamante ni comme monde entier bi ñëpp ñu ko doon suivre donc artistes yi jàll yëpp prestation yi naay suñu def yëpp mais Sénégal noo gën a xam ni bu nu gisul Wally Seck dinañ ko laaj. loolu c'est très normal et que loolu rek la donc même man mi boo seetloo nee naa dama toog ba booy pour xaar ko parce que ku ci nekk maa ngi xaar sa wàll ku ñëw ma tàccu ku ñëw ma tàccu artistes yi ku ñëw dóor ma tàccu mais mais aussi pourquoi euh, ma ma toog xaar yi dama ni c'est quoi le problème ba Wally jéewul. d'accord ah, en fait dañu gis ni euh, instant bi xam nga yow ku la xam-xam ne yaa ngi RFM ak te ku ne RFM wax TFM ah, ñëpp yëkkati baaraamu tuuma jubali ko ci ki nga xam ne moom mooy Ndiaga Ndour yow ñu gis ni yaa ngi liggéey ci fi nga xam ne moom mooy ci entreprise boobu ah, tey bu ñu gisee nga génn def loolu nit ñi daf leen di jaaxal en tant que yow ngay liggéey foofu en plus nga nekkoon foofu polémique bi am nit ñi di laajte dañu bëggoon xam ndax yow amul dara loo ci jot a xam rek loo mën a wax internet ñi nga xam ne ñu ngi toog di seetaan ñu xaw am tuuti leeral. bon euh, peut-être loolu sa question la man dama bokk ci culture sénégalaise nekk euh, un porteur de voix euh, fi ma nekk muy groupe Futur Média liggéey moo fi teg euh, tey politique bu amee xooluñu pouvoir xooluñu opposition dañuy wax sunu avis ku ci nekk da ngay wax sa avis football bu amee muy sport ku ci nekk da ngay wax sa avis n'est-ce pas ça c'est la culture ku ci nekk am nga ci kàddu. donc loolu la fii nag on est démocrate nous tous au fait parce que fii ku ci nekk luy sa liggéey duñ ko respecté euh, ku ci nekk luy sa cër xam nga ko ku ci nekk xam nga luy sa devoir pour nga euh, def ko euh, Ndiaga yow yaa ko tudd sama directeur la bu ma fonk bu ma bëgg waaw bu ma jox cër et puis ma xam ni tamit vraiment c'est un travailleur man li may wax teguma doit ci Ndiaga Euh, peut-être euh, yéen a ko analyser noonu Ndiaga ku ma la ku fonk la ku ma ku ma ku ma jox cër la ba pare muy le directeur de la TFM euh, ma di ko jox wàccuwaayam damay wax rek comme li nga xamante ni mooy li Sénégal yépp gis ma gis ko wax ko parce que man sama liggéey dafa laaj am na yoo xamante ni bu jotee nu nekk ay porteurs de voix nu gis loo xamante ni des choses qui euh, qui qui ne sont pas normales ah mais il faut il faut le dire c'est très normal parce que loolu mooy defar aar bi loolu mooy tax aar bi euh, tegu ci yoon bu fekkee ni ñu war a wax waxuñu ah mais nga nga wax pour rek defar parce que man li wax c'est très normal sek Seck dafa waroon jouer loolu moom je l'ai dit c'est très normal. comme li nga wax léegi da ne ñun ñoo ko wax mais dama gis ni Sénégal yëpp génn nañ dañu wax ni affaire bi sabotage la moo tax tey ñu ñëw toog di ci waxtaan parce que ñëpp loolu la ñu wax dañu jàpp ni sabotage moo am moo tax Wally Seck yéegul parce que heure bi mu waroon yéeg yéegu ko moom dafa bëggoon a tëj moo tax ñu saboté affaire am. bon euh, peut-être loolu euh, man duma basé wu ci waxu nit ñi parce que man maa mag loolu au fait man dépassé naa naa nit ñi parce que yàgg naa ci ci ci communication. donc du ma dox ci ay <laughs> dégg naa diw wala dégg naa ma Massamba ou bien ma Mademba moi j'attends euh, ki nga xamante ni mooy Wally sec moom mi nga xamante ni euh, moo dund mbir mi moom mi nga xamante ni que euh, moo nekk artiste ci yan condition la la dundee lii ak aussi préparation parce que loo gis am na avant pendant et après tout ça nag j'aimerais bien partager avec wali pour savoir les détails entre li xew keroog ca stade du Sénégal mais je suis pas là pour euh, des détails et puis pour di wax yenn affaires yi non ça m'intéresse pas franchement. Ah, aussi ñu gis aussi tamit euh, li nga xam ne moom la Sénégalais yi def stade ba ñu defaroon ñu bijou comme ni nga ko tuddee tout à l'heure euh, ñu commencé di fa xeex ci biti bu commencé toj fa quelques quelques affaires yoo xam ne def nañ ko fa stade ba nan nga gisee loolu jeunesse sénégalais ñu may ñu lii ba pare ñu wëlbatiku def loolu. non loolu moom dama koy ñaawlu pourquoi ma la koy ñaaw lu tax ma koy ñaawlu mooy ñun Sénégal am lu ñuy dàkkantale muy le pays de la teranga et que loolu lu nu war a bàyyi xel la bu nu ñëwee juddu fekk ko fi eh, ñeneen ak ñeneen juddu fekk ko fi ba ngay judd ba tey yaa ngi fi fekk ceebu jën ceeb bu weex dëxi nag maa fi ba tey comme ni ñu ko daan waxee un peuple un but une foi yooyu yëpp mi ngi exister il faut respecter euh, ces normes la c'est très important euh, tu sais la nouvelle génération d'aujourd'hui moi je me dis que euh, c'est les parents ont fui pourquoi ma di ko wax mooy yaratuñu seen i doom xale yi léegi yu bëri dañ koy doxee ci loo xamante ni manque d'éducation la mbedd bi boo génnee ci mbedd bi yaa combien de taalibe xale yi circulé yëpp ci mbedd bi nii di wër oto yi après nooy màgg rek nekk bandi parce que après waaw na parce que da ñëw nu fëgg la na la ne na la jox ma c'est-à-dire boo leen joxulee ñoom dañuy insister pour nga jox leen xam nga kooku mi ngi am jikko boo xamante ni peut amagul doole mais boo amee doole am na ni muy def mu nangu ko li nga yor donc yooyu yëpp nag état da ci war a jóg yooyu yëpp état du ci war a bàyyi xel parce que am na yoo xamante ni que état xeexoon na ko fii xale yi di bàyyi di nekk ci mbedd yi di di taxawaalu di yalwaan de gauche à droite yooyu c'est des choses à régler tey loolu nag mooy indi yenn problème yi nu gis nit ñi ñoo ci benn événement bu mel ne stade du Sénégal ñii dugg ñoom dugg nu mais écoute dañuy xeex ak yow pour dugg parce que xamuñu yenn mbir yi te nit nag boo amulee yar. foo dem mm, wane fa sab ñàkk yaradiw sa ñàkk yaradiku donc vraiment nañ delloo si seen xel man maa ngi ñaawlu loolu trop di leen wax ni vraiment lu ma ñaawlu la parce que lu baax dafa jekk suñu baay tamit dafa baax suñun mais na fekk nu civilisé na fekk nu am personnalité na fekk aussi tamit nu gëm suñu bopp nu fonk nu bu ñu jógee foofu euh, dama naan euh, siddaat ku ko dégg xam ni voix macha allah nit ñi bëgg nañ ko torop euh, charisme bi lépp a ngi fii ñëpp dañu xaaroon ni bi di DJ Boubs jógee fi nga xam ne moom mooy TFM Sidath moom mooy dem ca télé ba di def émission yu bari ndax siddaat moo choisir reste ci rajo bi wala moom lan moo tax gisuñu ko muy def émission yu bari yoo xam ne fële nga xam ne mooy TFM. man li may sant ma liggéey rek loolu rek lay def <laughs> loolu rek laay def. <laughs> loolu rek nga ci wax. loolu foofu rek laa mën a yóbbu. daal ci télé rajo bi daal nga koy kar rek nekkoo ci télé bi. non du question nekkuma ci télé bi. man ci groupe laa nekk. fii la radio si moo bébé. je l'ai baptisé euh, le 1er septembre 2003 rajo bi moo jur télé bi man lépp fii la ma fekk. macha allah loolu la yàlla dogal. waaw donc nag ni muy doxeek Sidath nekk fii ngeen koy dégg fii kese c'est si Sidath. Hmm. man liggéey bu ma ko joxul du ma ko def munu ma munu ma ñëw créer sama boobu liggéey bi ci biir wala soit ma ñëw ne tey da may jox émission par la force wala tey damay génn tey TFM par la force je le ferai jamais je le ferai jamais donc xam naa daal am naa sama programme depuis que la radio existe euh, depuis que tamit TFM existait euh, euh, bokk naa ci ni tàmbali programme mu TFM ndax daan ngeen ko gis waaw ci yoo xamante ni que c'était des programmes yu ñu daan def ñu koy gis. on a débuté dem ba mu dëgër bon après nag bon tu sais yaa ma gën a xam am na yoo ne garaawul quoi je veux pas. Ah, bu ñu jógee foofu dañuy dugg ci élection locale yi ñu dégg ni sa goro daf doon présenté ki nga xam ne moom mooy Bamba faal si je ne me trompe pas ah, tey naka nga dundee li nga xam ne moom mooy élection yi ni mu ko doon lié ni mu doon defee élection ak problème yi ci amoon nag yooyu yëpp nga gis ni génn na ci ah, que ni moom moo gagné aussi. non Bamba sama goro la woon. oui ku baax la. Euh, ma koy félicité moom de la façon moo yor carrière politique moo xam ne moo koy defee war na wala warul loolu sénégalais yi noo koy euh, jugé mais moom mi ci carrière xam naa ni seq nañ jàmm ak salaam donc ma koy souhaité jàmm ak salaam di ko souhaité beaucoup de joie et de bonheur et puis beaucoup de réussite voilà. tey lan ngay tàggatoo ak ñi nga xam ne moom mooy internet toogoon di ñu seetaan. sant euh, bépp euh, internet bi nga xamante ni mi ngi suivre euh, Dakar 221. Kia toi aussi je te remercie tu es ravissante ah et puis di wax ni su ma waxee loo xamante ni lu dëng la maa ngi jégalu di baalu ñëpp di nuyu sa caméraman bi donc di nuyu tout le personnel donc di wax ni que le meilleur reste à venir donc à bientôt et puis. voilà jàmm la paix au Sénégal voilà merci. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah rabbi merci.